mbokk internetu bp actu point com ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal te fa seeni ñëwaat ak yéen ci seen xibaaru analyse ba tax na nag tey jii wàllum sport lañ ci fa seeni ànd ak bu buñ ne sport rek faaw ñu dugg ci li nga xamante ni moom moo di coupe du monde vingt 2022 bi ñu nekkoon na ci phase qualification yi. Euh, Sénégal daal di euh, waaye qualification boo xamante ni euh, bari na bruit lool ndax mbir mi dafa nekkoon diggante jëf ak fayu égyptiens yi ñooñu njëkkoon a sawote ba ñu demee ci li nga xamante ni moom moo di match aller ba ci seen réew ñu gis ñenn ci ñoom yoroon laser doñ ko teg waa équipe nationale du Sénégal ba ni ñu gañee match boobee donte sax marqué wuñu bi ndax Saliou Ciss moom moo daal di dugal euh, but bi contre euh, son camp waaye sénégalais naka ku ko wokk mu daal di rey xuri ba tax na mat ci retour bi ñëpp dañ ci àndandoo déggandoo euh, ci réseaux sociaux yi ñu amal ay publication ni bis bu fi faranwoo yi ñëwee rek ñu ñëpp nañu daal di jënd suñu ay laser ak yeneen jumtukaay yoo xamante ni day tax ñu daal di leen di fay bu wis leen ñu daal di lebal waxee woon nag noonu lañ ko daal di defee ca bésub 29 mars ba eh, ca diwaanu stade Abdoulaye Wade bu Diamniadio bépp sénégalais boo xamante te woon nga fa rekk eh, da nga daal di jënd bi jëndaale li nga xamante ni moom moo di laser ñu ko doon tekk gardien de but yi eh, doon ko tekk ñenn ci joueurs yi rawatina kii nii de Mouhamadou Salah ba ñu gis nag Mouhamed Salah ni mu daal di raté penalty bi raté boo xamante ni daanaka jegewul camp yi benn yoon ndax da koo jël lekk daal di koy tiire ca kaw na ci égyptiens yi doon amal ah, ay ah, publication ci réseaux sociaux yi doon wax ni sénégalais ah, dafa def acte de discipline boo xamante ni dina ko topp ndax li nga xamante ni moom la ñu def nii méngoowul ak règlement waaye tamit naka di sànni yeneen track yoo xamante ni suñu yoon yàlla tey ji sénégalais yi ñoo ngi leen ci doon tontu waaye yemul foofee Carlos Queiroz mi nga xamante ni moom moo nekkoon seen sélectionneur match bi jeexee ba jeex dafa daal di nangu ndogalu yàlla rek xam ni kii nii di Aliou Cissé moom moo ko mën mu félicité ko encouragé waata ñi nga xamante ni ñoom ñoo di pharaon de l'Égypte yi di leen yëgal ni Sénégal bu demee Afrique la représenté te ku représenté Afrique ku nekk war nga mën a représenté waale ñi nga xamante ni ñoom ñoo di égyptiens yi encouragé na leen euh, ba ñu foog ni coow li foofu lay yem waaye seen euh, fédération euh, dafa jóg tembe rek fas yéene porter plainte te poursuivre sénégalais yi pour acte d'indiscipline ca bésu match boobee ndax nee nañu ñoom ñoo leen a empêché woon lekk ñu daal di accomplir seen mission te nañ ko war a defee li nga xamante ni moom moo di seen mbébét daal mooy jël défaite bi ñu am ci kanamu sénégalais yi à deux daal di koy wékk ci laser yi nga xamante ni moom la ñenn ci supporters yi yóbbaale woon ca stade ba ca bés boobee donte sax bind nañu plainte bi ba noppi daal di koy jébbal waa FIFA waaye nag condition yi ñu ci teg jamono ji mooy soit lekk ñu daal di joué waat match bi recommencé waat ko à zéro Euh, soit tamit nag Sénégal bañ a dem euh, ca diwaanu Qatar ci coupe du monde bi ñu disqualifié ko ngir acte d'indiscipline et de sabotage euh, ci bésu match boobee Diomaye Sy Camara nag moom daal dina ci def ab jàngat bu rëy waaye tamit nag def na ci ab sortie boo xamante ni c'est très musclé d'après publication bi mu amal ci réseaux sociaux mi ngi yëgle ni daal maillot Sénégal dina takk lu tilim dina takk deret waaye maillot Sénégal du mës takk gàcce ba tax na allah ci amul bàyyi la ñu daal di demee ci match keroog ñuy daal di qualifié te égyptiens yi sax bu ñu taxawee fii di wax dañoo yabaate rek waaye li ñu li ñu ji dong la ñu daal di góob ndax ñoom ñoo ñëkk a tàmbale wàllum laser yi ak yeneen attaques yi sénégalais yi daal di leen ci fekk fekk leen seen terrain mën leen ci ëpp doole ci li nga xamante ne moom moo di wàllum ruube donc nañu daal di nangu dogal rek ah, te xam ni fii mooy Sénégal lépp lu fi waaye di leble rek nanga ko daal di xam ah, publication ba nga xamante ni nag ñenn ci égyptiens yi bañ ko gisee daal di nañuy am mbetteel lool ndax jàpp nañu koo xamante ni Euh, chroniqueur la ci sport boobe warul taxaw di tranché ku muy faral ab ku mu dul faral waaye Diomaye Sy Camara nag lu yëngu lu ne la ko yëngu la ko ëpp doole euh, deretu sénégalais moom moo daal di yëngu ci moom te xam na bu baax a baax ñun ñooy sénégalais sénégalais boo ko joxee mbaax mu daal di la koy delloo waaye boo ko wanee leneen lu dul mbaax rek mu daal di la ciy fekk si ba mu mat sëkk comme ni niñ ko waxee nag tey ci alxames bi nee na ñun ci la ñu fas yéenee indi ay préju leer naññi que sénégalais dañ doon def yeneen perturbation en dehors ci stade bi ñu nekkoon xamante ni waa FIFA gisuñu ko woon preuve yooyu la ñuy xaarandi tey ji ak lu ci mënti am daal jàpp leen ni waa FIFA ci seen jëmmi bopp ñoom ñoo njëkk a félicité sénégalais yi di xool li nga xamante ni moom moo xew ci yi attaques yi nga xamante ni ñenn ci égyptiens yi ñooy continuer ah, di ko attaqué sénégalais ñu leen di tontu waaye tamit nag ah, seen fédération démarche yi nga xamante ni mi ngi koy amal ngir ko Sénégal bañ a dem ca diwaanu Qatar lu ci mënti am ah, fi lañ leen koy indiwaatal incha allah sur la BP Actu jërë ngeen jëf mbok yi.